bés bi bés bi day bésu iit di bésu jéggaloonte ak bésu jéggale ñu daje woon ñun jigéen ñëpp nag commune Biscuiterie yëpp nag ñi ngeen fi fekk ak ñi ngeen fi fekkoon dañ leen di yóbbaale rek ñëwoon di balu si suñu leader ak di ko sargal di ko ñaanal yàlla lu mu man ren bu déwénee yàlla na man lu ko raw ci barke Nabil Moustapha moo ñu soutenir moo ñu jàppale moo ñu dimbali ba tax jooyuñu dara jàmbatuñu dara car macha allah tubaarkal jàmbatuñu dara lu ñu waroon a xaaraane rek xaaraaneetuñu ko jotuñu ci président Macky Sall waaye ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi julli ci Moustapha di ko sant ndax desee lu ñu dara waaw financement yi ñu ngi ci mu ngi ci bâche yi ak saisi jigéen ñi ñuy luye di fayeeku di fas seen xaalis mu ngi ci calebasse yi calebasse gu mu dem def ci un million wala mu def ci 2 million wala mu def ci 5 millions wala mu def ci 500000 commencé nga démarrer dem nañ fu nekk ñu ngi fay dem yi ñu ngi jëggaani ñu ngi dem fu nekk di fa defi financement yi di ànd moom du ñu sonn nag du ñu tàyyi parce que ci développement rek la woote woowuñu pour ñu tàcc ko woowuñu pour ñu kiyal ko xam nga lu mu ñu doyee bu leen xeex bu leen xuloo sangu leen ba set sol leen seen yére wax leen lu ngeen bëgg ma taxaw ci ci loolu la nekk nag ba mu ànd ak ñun ba léegi ci loolu rek la ànd ak ñun développement rek la ànd ak ñun ànd wala ñun lara lu dul développement. fu mu nekk nii li li yëngatu yëngal ko ëpp ndax tabaski bii tey ku nekk bàyyi sa kër bàyyi sa lépp ñëw wuy si aaruna aaruna ñu ko ji aaruna bu ñu woowee ba kuri koro dañuy ñëw aaruna moo fi def lu fi kenn defut ñu nekk ay femme muy def développement di def social ñu ñëw fekk si ko fii ñun ñoo ko fekk si di ko ndokkeel di ko jaajëfal gis nga commune de Biscuiterie kenn xeexatul commune de Biscuiterie kenn xuloowatul xamal lan la ñu xam liggéey ñaq tedd ñaq jëriñu koo fi gis tey ci jigéen femmes yi taxaw ñëpp ay responsable lañ xam nga ku ci nekk sa commune da nga bu ba mu ndax aaru na Coumba Ndoffène mi moo ñu teree xeex tere ñu xuloo tere ñu lépp waaw aaru naa ngi ci financement yi aaru naa ngi ci développement yi aaru naa ngi ci forum de quartier yi aaru naa ngi ci xale yi aaru naa ngi ci lépp namatuñu dara gis nga Macky Sall ñu ngi koy gërëm di ko sant ba ñu indilee ku mel ni aaru na Coumba Ndoffène mi biir commune Biscuiterie yi ñun Arouna rek la ñuy roy fu mu nekk ni bu ñu jógloo guddi dañuy jóg bu ñu jógloo bëccëg dañuy jóg ndax Arouna mëndoo Ndoffène mi moo ko waral.